très à j'ai amené le programme nous on a cinq piliers le deuxième pilier du programme Sénégal majeur c'est ce qu'on appelle la refondation de l'administration je suis le seul candidat à proposé ce qu'on appelle le ministère des données li Birama wax xale bi su juddoo dañ koy suivre le ministère des données dafay joxe lépp état civil passeport carte d'identité suivi c'est une anomalie c'est-à-dire administration waruloon nangu ñuy bind n'est pas inscrit sur waxu koon na ko ça devait une exception aujourd'hui c'est devenu la règle gis nga suñu administration je parle le cas de mon chauffeur jàngul xalem dafa juddu en 2018 ñu defal ko certificat de non inscription à l'état civil certificat bi moom mu téye ko foog ne am na kayitu judd bàkki dem mu yóbbu ko école mais kan kan moo ko jox kayit boobu état si femme état civil dégg déglu ma document bi certificat de non inscription à l'état civil le document est en bas waxul kenn dara ba mu koy waaj di dugal école mu dem ñu ne ko noonu lii du kayitu juddu léegi nag nu muy def ñu ne ko dama uti certificat d'accouchement demal indi sa carte d'identité eh, jabaram mu ngi jógee Bissau dem leen ut ñaari témoin dem tribunal voilà un peu les solutions que nous nous dañoo war a yombal askan bi ni mu nekk la refondation de l'administration est une priorité c'est pas une promesse électorale ça veut dire que njëriñ la pour ñëpp gis nga xale bi suñ ko toppee Sénégal tey gouvernement bi mënu la wax combien de jeunes cherchent du travail mënu la ko wax combien de jeunes dans l'informel dañuy wax ay chiffres nii rek dañoo am un problème réel boo xam ne on aurait pu le régler depuis longtemps mais on ne veut on a des gouvernements qui sont là pour la jouissance du pouvoir pour l'accaparement des richesses mais loolu moo flagrant loolu nag dama ne tant que amuñ équipe bu koy dindi muy góor di jigéen du ñu ci génn ce n'est pas fini le permis de conduire on a vu des jeunes ñu ne mën na dawal poids lourd parce que amul na âge bi ñu dem état civil négocier ñu yokk seen at. Mm-hmm. mais tout le monde est au courant mais le ministère aujourd'hui du Wédu-Sahel ñaata ñu nekk situation boobu da ngay gis kenn dem ñu visa ñu bañal ko ko. mu ne maa ngi tudd Samba Diaw ñu bañal ko visa ci état civil mu dem dindi dee bi dafa caw ak et cetera ñu et cetera chargé turu papa chargé turu yaay ku juddee dans la sous-région ñu bëgg ko voteloo ne mu ngi dëkk Ranérou wala Houdalaye wala Logritcholi mais c'est des choses que nous vivons moo tax ma ne la tant qu'on n'a pas refondé notre administration on a tellement de problèmes sérieux que effectivement les candidats doivent avoir la compétence la rigueur et l'expertise